gàttal ñoom ñëpp sama ot salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi Gambian people Sénégal yéen ñi bëgg a xam kaa bi nu mu demee nii la demee Awa joon dafa yóbbu cartel police parce que nee na cartel da koo doroge dog koy kat demeewul noonu de Awa joon ak Mbayang ak cartel ñoom ñëpp sama hôtel la nekkoon man ñaari hôtel laa jëloon fay leen bu ci nekk sa euros yaa ngi dégg jox leen ñoom jigéen ñi benn carte yore benn carte léegi nag mat ñu jóge soirée ma ne leen nan dem sama gàlle tuuti ma sangu préparé ñu doog a génnaat ba nu demee noonu ma tëdd ci lal bi euh, mbayeng tëdd nii cartel euh, tëdd nii awa jong mi tëdd nii yaa ngi dégg man may nelaw damaa sonn may nelaw nelawlu mbayeng moom départ na bu yàgg man xam nga man damaa caga man damaa bëgg yëfu caga mais du ma jigéen mën naa nekk yow nga simmi say tàtt la sax faale billaahi mën naa nekk di wax lu ne mais man du ma caga la mbayeng tëddee cartel tëdd nii awa jong tëdd nii yaa may dégg awa jong cartel di làmb ween yi di ko lambu waxul dara mu ne mu jàgg mu ne ko daa am lu ma lay wax nan dem ci douche bi ñoom ñaar ñu dugg dem ci douche bi cartel ubbi ndox mi ñoom ñaar ñuy sango ba ni mu koy roofee koy di ko kat awa jong mi am am na trois doom xaw ma cinq mu jàpp ko di ko kat di ko kat di ko kat di ko kat ba daanu daal di ubbi douche bi daal di ñëw tëdd ñu naan waa Adama de mi moom yee ko ndax danoo war a dem soirée bi may wonku naan ah damaa xaw a gëmmit fekk dégg naa lépp katt yeeg na mu demeeg yépp léegi nag awa jot nag dafa dem yobbu cartel police ndax nee na cartel da koo dorage doo koy kat du dëgg kat yaag ba ni sa ngoog nam koy roofee ay ko yépp fekke naa ko maa jëloon hôtel bi man sama hôtel la maa ko jëloon ñaari sàmbur ñaar jox leen ku nekk benn carte de góoba de maa leen fayoon sama xaalis da sama hôtel la la fa xew lépp maa xam Mbaye ak moom mi ngi doon nelaw Mbaye mi ngi doon nelaw mais ma nelawuma dama doon nelaw nelawlu pour déglu kat yi yaa ngi dégg maa ngi dem ci dus bi gis naa rëbbi na baa ngi xelli koo yaa ngi dàqe carte la nga koy kat di ko kat di ko kat yëbuñu foofu de ba nu demee ci soirée bi ban demee ci soirée bi baali man ba may ñibbi Mbaye ak ca discothèque ba laa ko bàyyi moom kese waaye awa jon àndaat naa cartel ci fajar gi dem cartel kattaat ko daat koy gunge mu ñibbi cartel rek moo ñëw ci biir discothèque bi demeewul noonu damaa bëgg waa Gambian people ngeen xam ne cartel dorégawul booy bi katt ko déedéet awa jot moo bëgg cartel kat ko te sama hôtel la ko doon kattee ci biir douche bi ba leer na merci beaucoup cartel ñoom ñëpp sama hôtel salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi Gambian people Sénégal yéen ñi bëgg xam kaa bi nu mu demee nii la demee awa joon dafa yóbbu cartel police parce que ne na cartel da koo dorogé dog koy kat demeewul noonu de awa jon ak mbayang ak cartel ñoom ñëpp sama hôtel la nekkoon man ñaari hôtel laa jëloon fay leen bu ci nekk 400 euros yaa ngi dégg jox leen ñoom jigéen ñi benn carte yore benn carte léegi nag mat ñu jóge soirée ma ne leen nan dem sama gàlle tuuti ma sangu préparé ñu doog a génnaat ba nu demee noonu ma tëdd ci lal bi euh, mbayang tëdd nii euh, cartel tëdd nii awa jong mi tëdd nii yaa ngi dégg man may nelaw damaa sonn may nelaw nelawlu mbayeeg moom départ na bu yàgg man xam nga man damaa caga man damaa bëgg yëfu caga mais duma ma jigéen mën naa nekk yow nga simmi say tàtt du la sax faale billaahi man na nekk di wax lu ne mais man du ma caga nii la mbayeeg tëdde cartel tëdd nii awa jong tëdd nii yaa ngi may dégg awa jong cartel di làmbu ween yi di ko làmb waxul dara mu ne mu jàgg mu ne ko daa am lu ma lay wax nan dem ci douche bi ñoom ñaar ñu dugg dem ci douche bi cartel ubbi ndox mi ñoom ñaar ñuy sango ba ni mu koy roofee di ko kat awa jog mi am am na trois doom xaw ma cinq mu jàpp ko di ko kat di ko kat daal di ubbi douche bi daal di ñëw tëdd ñu waa Adama de mi nelaw moom yee ko ndax danoo war a dem soirée bi may wonku naan ah, dama damaa a gëmmit fekk dégg naa lépp katt yeeg na mu demeeg yépp léegi nag awa jot nag dafa dem yóbbu cartel police ndax nee na cartel da koo dorage doo koy kat du dëgg kat yaag ba ni sa ngoog nam koy roofee ay ko yépp fekke naa ko maa jëloon hôtel bi man sama hôtel la maa ko jëloon ñaari sàmbur ñaar jox leen ku nekk benn carte de góoba maa leen fayoon sama xaalis da sama hôtel la la fa xew lépp maa ko xam Mbaye ak moom mi ngi doon nelaw Mbaye mi ngi doon nelaw mais man nelawuma dama doon nelaw nelawlu pour déglu kat yi. yaa ngi dégg maa ngi dem ci douche bi gis naa robinet baa ngi xelli ko yaa ngi dàqe kat la nga koy kat di ko kat di ko kat ñu foofu de ba nu demee ci soirée bi ba nu demee ci soirée bi baali man ba may ñibbi Mbaye ak ca discothèque ba laa ko bàyyi moom kese waaye awa jon àndaat naa cartel ci fajar gi dem cartel kattaat ko daat koy gunge bu ñibbi cartel rek moo ñëw ci biir discothèque bi demeewul noonu damaa bëgg waa Gambian people ngeen xam ne cartel dorégawul booy bi katt ko déedéet awa jot moo bëgg cartel katt ko te sama hôtel la ko doon kattee ci biir douche bi baa leer na merci beaucoup